am na ay wax yu nga xam ne dañoo jib jëm ci wàllu subvention ngeen di wax mais yaakaar naa ne terme bi gën a approprié mooy compensation ndax euh, xam ngeen gerte tey fi ñu toll nii ci jamono bi kilo gerte ci àdduna bi fanweer ak nangam lay jar lu mu seer seer président Macky Sall ne xalaatul fanweer ak benn boobu nga xam ne moom lay jar ci biir euh, àdduna bi. xalaatul mu jënde ko loolu ci baykat yi xam nga kii yërëm na baykat yi mu ne nag léegi yow Sonacos comme structure état nga ñaax naa la sant naa la demal nga jënd gerte gi ci njëg gi nga xam ne moom la seen yaa di fixé seen ñaa nag dajegul xañ na semaine prochaine daañu daje fixé njëg mais lu ñu jàpp ak ni ñu xamee président Macky Sall dañuy jàpp ne bu njëg gi rombul yéegul euh, njëg gi ñu amoon daaw du ko yées kon ñun tey Sonacos jekk nañu njëg gu nga xam ne moom la gouvernement bi fixé tey masalan masalan exemple rek laay wax maanaam bu ñu déparé ci daaw parce que daaw gouvernement bi ak seen ñaar 210 la ñu fixé woon mooy ñeent fukki daram ak ñaar bu fekkente ne loolu la gouvernement bi reconduire ren Sonacos jekk na ak lu métti métti jëndee gerte gi loolu mais Sonacos ci ndigalu président Macky Sall sañul dem ci baykat yi. naan leen damay jënd seen gerte fanweer wala samay jënd seen gerte euh, leneen donc ñeent fukk ak ñaar yooyu bu fekkee ne ñoom dëggal nañu ko Sonacos mu am bu amul compensation aussi jekk na pour jënd gerte gi kon nag li ñuy wax baykat yi aussi mooy bu kenn ñëw ci ñoom di leen mbappatloo seen gerte naan leen gouvernement bi dangay wàcce njëg yeeg gouvernement bi amul xaalis ak bañ mbappat seen gerte di ko jaayee ci luuma yi lu nga xam ne duñ ci gis seen bopp mbay daa metti mbay da ngay sonn sonn doo sonn nag ba mu des ay quelque semaines nga bëgg bazarde kon ñu ngi leen di wax nañu xaar tuuti ñu fixé njëgu gerte gi président Macky Sall ak ministre de l'agriculture fixé date bi nga xam ne moom la ñuy démarrer campagne agricole bi su ko defee ñun wax Sonacos jekk nañu pour jënd seen njëg pour jënd seen gerte ci anam yu nga xam ne moo gën a rafetee ci incha allah ren jii ku jox Sonacos. gerte daanaka teggi teg ci lay doon